Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. maa ngi woo Soxna Ndiaye làmb ji fàtte naa ko wax. baari kàll. Ndiaye ba dikk seet si la. sagam di nga ma teral. Ndiaye ba dikk seet si ko. teral gan yaa ko moom Ndiaye. ma dikk seet si ko. sagam di nga ma teral. Ndiaye ba dikk seet si la. teral gan yaa ko moom Ndiaye. fa toj na réew mi yëngu. yow fa nga nekkoon yaa nga fa de. waaw fa toj ak lu <laughs> lu baax de bu ñëwee si moom dégg dégg barki yoon non damaa yàqam na dama doon dem programme man a xaama jaar ba ba moom may wóolu ana mu sax Ndiaye. tubaar Talla Ndiaye dafa génn exil toog. damaa yàqamti nag bàyyi ma toog nii ci man bàyyi faa la. Oh. ma dem nii mën a jàkkaarloo yow sax wa asan contane na ci ni nga def de. barki yonent bi tubaarkàlla wal day sot de. ndeysaan ma sha allah dara dafa for ndeysaan te lo ñitt mu rod ca caa wa lol de amal na ni njaay sa nitu baay la won waaw loolu waaye tubaarkàlla sa baay da wir le ngay jox lako ko waaye. dëgg la tubaarkàlla mu jewo galen bi mu reer ndaysan waxal lo ci kaw contane na ci yow bax njaay bax and bu dembu la won tey soog a neena ko yow maag yow du tay sama papa mo yoroon galen nga jël ko jox mako dina ko nak stade bu ma fay dem dina dinaa la indil cent cinquante deux prix. déedéet kay tojal la stade ñëw ak bongo yi kër gi toj kër gi ba mu mokk rumbu. maa la wax loolu Njaay jar na ko. passé ñun victoire bi fii. barki yonent bi waaye kenn du yow. ndax Ndiaye ngeen ànd di jugo ka daanu muy métti ba soxla roi des arènes tey lu raw roi des arènes sax dina ko fi indi waaw tu es capable de faire tout bilaay yow def nga lépp yow bilaay maa ngi dem kontaan naa de yaa ko fi xaar dina ñëw bilaay fay yaa ko fi xaar dina ñëw sama xol ne dinañu indil roi des arènes da daw mu ne dinaa leen ko indil bilaay assuré na ko de jomb moo ngi liggéey la Ndiaye dina fa toj Ndiaye ku ànd moom doo jël ndaw sama xel da gën naa dal maamu Demba sama xel gën naa namm naa la nag. namm a say affaire rek maamu Demba maa ngi nii rek. ak a gaw ci xol yi. enveloppe bii fukki junni ak juróoma ci lii bari na waay ah. kon da jarul may dem programme. damaa bëgg tubaari kàlla nga fóot di fóot fóot mu bees tàq. bëgg naa daal. bu bis baa bu njaay génnee. Hmm. tubaar kàlla ñu xam ne génn. non foofu dina nooy dinañ ko def ak kon baax tubaar kàlla nag balaa maa dem boole woo dara ci am na loo ma daan ñamal nag li nga ma daan rimal ci suuf dégg Assane xoolal waaye fi ñu toll nii damaa jëm mag non eh, jëm ma eh. yow balaa Assane may ma ko rek Assane damaa jëm mag rim ko ci suuf rek rimal mu ko ci suuf waay Assane taal ma yal sa noon yi ma ko waral. man nanoo ay nga ne. Assane loolu gisul lu mu wax xoolal man mbaay moo xoolal yaa ko def mami dañ koy wax moo mami mbaay fii ku ma victoire victoire ba laay ñëw. waa maa ngi dem dama ñoom may xaar waa xew ak may xaar nag. demante ñëw baa ngi mais kontaan rawal guddi. rawal mu mel ni om rawal maamu Demba. ak a si yàq nga ca loolu fal ma avance bi de. <laughs> fii de toj na ba pare Ndiaye gañe na lan lambu ji noonu nañ ëpp na li mu téye lambu ji ci boppam moo ëpp tubaari kàlla man maa ngi doon bëgg a woo soxna Ndiaye sax kii yegg yow wër naa dolli. tey ay yu neex laal la indil boo ko laalee océan Atlantique danga koy wër. mani bul tijji may ma rek ma fi ne damaa gëj a ndax dafa am mbir bu taxaw boo xam ne moo gën a doon farata yooyu. dégg fi mu ne nii dama jël combat. ko combat. jërëjëf. dégg doon la nag cherche ci dëkk bi mënuma laa gis li ma bëggoon nag moo jël la taf la sama gannaaw. laalal sa loxo suuf. <laughs> saa ba xam <laughs> yooyu sama waaj dégg làmb nga may wax làmb bëre. làmb bëre waaw. da nga ndef le waaw maa ko toj. Adrien Senghor maa ko toj. terrain gaal gi maa ko toj. cent douze heures man na faali nag. Hmm. du ma sax bindu ay lese luur. di jël di teg. xam naa jamono wëlbatiku ci yow rek. c'est que ma ñëw pour ni rek di défar xam nga ay mission yoy non di dox ngeureum ci gaway mais champion ngay waxal champion jeexna li la bëggul nak xam nga la bëgg lo gis lu ne nañ ko ding top sama ginaaw la bëgg nga def ko nga may toxal sama mission Ding. bëgg na nak tahu taxaw ne wex na nga netal juutu na nga ne wing xonq na ma ni cuy ah kon jeex na <laughs> dégg combat bi nak xamna ne du ragal wala bok baña am confiance ci limay def parce que xamna ne ki may bëral du moromam ndax bëri ba bay sama gannaaw mustalal fu jërëjëf waaye bëgg na la jël dal tafla sama wet su ko defee ñu liggé ngay sama staff combat bi bu teet. combat affaire rek ginnaaw la. jeex na naa woo takarikin yëpp ñu teew. surtout. foofu ay naaya. Uh-huh. ay bas ndooy. ay raf. ay mos. Uh-huh. ñëw ñëpp dañuy ñëw dolli si. jeex na ay sama waa dolli. waaw koy bëreel. Uh, Njaay Njaay da laay bëril war nga koo xam. borom leel ba. mooy gaayan bu tuuti boobu noonu. borom leel ba. <laughs> mais nag naa la xamal leen ni Ndiaye de. mooy. combat bi man su ma neexee sax du ma la jox conseil damay dem toog te xam ni xoola medum sànqaleñ taxul tandi béew. jeex na Ndiaye du combat. ma la ba ma ko ñuusee du tey ba ma ñuusee Ndiaye du tey. mais nag attention de. mooy làmb dafa garaaw. làmb dafa bëri musique. instant bi da nga may jox benn ten taw mo sama gaay xam nga ñu tambalé amuñ def parce que mbeur bo koy top tamit tay pare de loolu leer la lolu lèr la mais xam nga lan la bëgg fofu fim mu ne nii damaa génne loxo yi neen boo da ngay jaar kër ga ma am luma tek sa loxo su ko défé nga am yo piloté jéré dégg nga lépp lo gis ne war naa jagal rek téla la wax ma génnee as mbir jox la maa ngi ñëw léegi léegi léegi léegi si gaawaay foofu noonu RVP laay def. maa ngi lay xaar. jërëjëf dégg yow loo bëgg rek teel a la wax rek yow lu mu laaj lu ne waxal danaa la ko jox. ndax Ndiaye fu fu mu jaar ma ñuus dem ba tëb ci kawam lii man maa la ko wax. boo paree jaaral kër gi dégg nga. entraînement yi na de mënoon ngaa laalaale benn wax nga ma lu ma man làmb ay bàcc mbaw. ay Modou Anta laay goote ay building boo jaxaw alaaji gaynde ñëpp dama leen a dar leen defal lu metti làmb booy booy oh, mbam njambaan ngay lum o oh, mbéy gay téekër da faas daaxul nag jour bi ëmm seen booy di galgal booy baala kay booy booy boobu laa neex na billaahi yow. waaw mais toog yow looy taxaw. taxaw taxaw ma ne man noppalu si bagage sax. ah waaye toog bàyyi lii waaye wu. waaye bi amul xaar. li ñuy def non non ba pare. wax soo looy def nii donc day nekkal ki nga war a doon xoolal fi affaire dañ ni jaay amu fi de liggéey la. ma ne dof da ngay liggéey rek. non da ngay liggéey de soo ko ah directement loo def ma def ah ñu def. atia atia da nga koy yemale fii ba pare tons yóbbul na le atia andil tons atia andil ma ko fii nag tons andil ma ko fii. conseil teel sa yii fii maa ngi ci de maa ngi ci de baax na ah. poli ah toos jëlal poli bi ñoo war a daw ma poli bi mu gaaw waaye dafa nii ah dama tege sa xon ah mooy tege sa xon de eh, nga bàyyi yow looy def nii xëccal waaye dugal 我要要要得，不买得吗？不买吗？那不买。我一定。他真。他不弄，他真灵，他真灵，不灵他真。光说打我这个这里，不能离，要不然我这里弄不来，不能离，离，离，离。我讲一万多，不够啊。 boo boo boo boo ma dóoraatee ma xañ dama lay xañ. waaw garaaw dëkk jëlal kii waaw. dënn bi baax. nee naa ko. xool da ngay jël taf sa dënn taf ko ci dënn bi. delloo la nii. tàllal sa loxo yi. toog mooy premier bu ma fi indi problème tegal sa dënn bi yëngati ci kaw toog. Tonze, tonze. Hé, hé. Toz wapal, pal, pal. Pal,